Yilimaan Ndiaye mu daru euh, bornele akub équipe Ah, mooy ubbi li nga xam ni ah, mooy xibaar yi nga xam ne moom la ñu gontoo tey la ñu koy commencé ni ñu leen ko waxee mooy Yilimaan Ndiaye mi ngeen gis noonu ab équipe am léegi la doon football waaye équipe ba nag ah, football na moo mane benn bal ci dara ba match ba jeex nga kon match ba loolu la joxe 1-0 équipe bu Yilimaan Ndiaye di Sheffield United moo mane benn bal ci dara Yilimaan Ndiaye moom football na match bi lu toll ci juróom ñett fukki minutes ak benn la gone gi def ci biir terrain boobee nga xam ni daanaka toj na ko doonte passé wul benn passe décisive doon te dugalul benn biit it waaye équipe fi mu toll nii mi ngeen ne ñàpp bër na la ci ñaareelu place bi nga xam ne euh, ñoom gone yi nga xam ne ñoo ànd ak Iliman Ndiaye euh, ñoo ca nekk ngeen gis ko noonu classement bi euh, bër na la moo jiitu am lu toll ci juróom benn fukki poñ match bi muy football nag moom fi mu toll nii des na lu toll ci juróomi minute bër na la ndam demul ndam dikkagul Selby United juróom fukki poñ ak juróom ñaar la am Ismaila Sarr ak Watford nga xam ne footballun tey suba la ni football ñoom am na lu toll ci ñeen fukki poñ ak ñett ñeen fukki ak ñett yooyu nga xam ne bu subaa mën doon ñeent fukki poñ ak euh, juróom-benn euh, kon ngeen gisee noonu mu mel ni euh, daanaka Ismaïla Sarr Issou kii gaayam sori na lool bopp classement ba Bayern nag sans Sadio Mané moom it dafa témboo benn ak ben nga xam ne ci équipe bi nga xam ne mooy Leipzig Bayern Munich loolee la jeexe kon gonek sénégalais gi bokkul ci match bi mi ngi ci noppalu goo xam ni mi ngi koy noppalu waaye mi ngi def ay tàggatoom ndànk-ndànk juventus de terrain maanaam ci am mbuxum moo xam ne moom lan jàpp ni moom la doon def ci li nga xam ne mooy am njënd moo tax ah, ñi nga xam ne ñooy arbitre ci li nga xam ne moo nekk wàllu championnat Italie ah, dañu ko regretté maam lu toll ci ah, fukki poñ juróom maanaam dañu ko areer fukki poñ juróom lan wàññi ci lim amoon moo tax gone yi nga xam ne ñooy màgget yi ñu naa leen wieyu daam ñu ngi toll léegi ci fukkeelu place bi mu nekk loo xam ne nag daanaka dana difficile ci li des ci championnat bi ñu mën caa def dara loole tamit nekk lu am njàng moo xam ne njëkkul tey ji ñu koy def ci li nga xam ne mooy juif njëkkul tey ji tamit ñu koy def ci championnat Italie nga xam ne daanaka fonk ay règlement loolee même lu leen tële la yeneen information ci kanam tuuti Aladji Malick TV